ay ci len ko ko deg te beug dem bo yeboo nga waaj ko waaj na nga jog ku jog nak ma top ñu and yere yi li ci yene kay bi di disul safar quotidien di yene kay bi genn ñetti fan yu nekk di wax ci mbiru magal gi ci magal gogol ñi ñuy desandi ak wa mouvement mat kaw mouvement mat kaw nak ño and ak hôpital Matlaboul ni organiser ben bis bo xamni dañ ci doon maye doon am aljuma yam ak ñaari fan ci wéru septembre atum 2022 yéene kaay disul safar bi neena dajala nañ ci lu tolloo juroom ñen fukki poste dret ak ñaar ci yu kilifa diine yi kilifa aada yi ak kilifa politique yi ci fallu job di coordinateur départemental mouvement mat kaw yene kay bi na sante na gëreem na jaajeufal na ki ñepp di foto te duñ sering koy Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba yene kay di su safar bi ne seutum bi di Serigne Bassirou Mbacké Abdou mo ngi amal liggey bu am solo ci magal gi ndax alxames bi ñu genn rek dalal na polisu Sénégal ngir waxtane lu jëm ci magal gi ci magal gogu lañu sering ak page 3 yene kay di su safar bi ma nga fësal nataalub Serigne Mbaye Thiam mu door semis bu noir takki lu netam di expliquer yëkkati loxo yi maanaam ma ngay waxtane birim assainissement ak ndox mu doy buñ ko mëne teunk ci genn kàddu moy Serigne Mbaye Thiam ren gi ndox du manqué ginnaaw wàccaayu magal gi ñu dem Mbàkke bool waxtane xeyu ndaw ñi kay bi neena pôle emploi des jeunes fexé na ba duggal ndaw ñi ak jigéen ñi ci école de l'entrepreneuriat ginnaaw xëyu ndaw ñi dañuy dem ci waajal màggal gi yéenekaay bi nee na altine yem ak juróomi fan ci weeru septembre atum 2022 ci la Touba ji kanam war a jébbale bâtiment R+3 bi bim tabax ci complexe Cheikh Ahmadul Xadim góor gi demoon jeewal te jeexul daan tubaab yi te xeexul dellu si di ñu seexal Mbàkke bala waroon naa neex baat ba yeggale tagg wi